boo nekkee ci xat-xat nga bokk ko ak say nawle lan ca mën yëpp ñu def ko te yàlla tax dana jaadu bu yàlla sottalee xat-xat yooyu nga ñëw jaajëfal leen delloo leen njukkal wan leen li ngeen def yég naa ko lool maa ngi leen ci sant di leen ci gërëm ginnaaw bi ma santee yàlla loolu rek moo doon solos ndaje bi moo tax gis ngeen ni mu tàmbalee ak ni mu jeexee ci lu gaaw la loolu la ñuy dox fan yi yëpp doxu nawle doxu jullit doxu aji gëm dalal xel yi waaye seral xol yi ni leen doomu aadama dundam nii rek la ndax ñi nga xam ni ci ñoom la ñu jokk ak ñi fi yàlla yebaloon yëpp lu nu mel dal na seen kaw doxalin wi lañu amoon loolu tax ñu doxalin yi di leen sant yéen it gis nañu boobaak léegi fu ñu jëm ngeen teew fi mais lañ leen waxoon démb ak bërki démb rek lañ leen di waxaat mooy tànki jàmm la tànk dox mbokk la tànk nemmeeku la tànk jaajëfal la tànk sargal la tànk yooyu rek fi ñëw amuloon woon tànk ginnaaw tànk yooyu amul yeneen tànk yu fi indi mënoon naan yam fi ma waaye wax naa ko ci biir wax ñun aji gëm lañu lii am suba gannaaw soow yàlla rek ko xam doomu aadama nag warut a wax lenn lu jëm ci suba ndax xamul ndax dana fanaan tey nu ñu bàyyi suñu bopp ak yàlla ñun ak yéen ñi ngi ci àdduna bi bu ñu yàlla mayee fekki ak tal lépp lu ñu nekk daa ngeen ko yëg bu boobaa bu ñu waree wax daañu leen woon ni leen tey daañu wax bu ñu waree dem fenn it daa ngeen ko yëg ñu ak yéen la yàlla nañu yàlla sàmm sàmm leen te ngeen fekk jotaay ñuy amal yëpp. kenn ku nekk ci xeex bi la nga ca war a def yaa ngi koy def ñu la ciy ñaanal di la ci jàppale. loolu rek mooy tontu loolu na tudd usmaan Sonko na tudd Matar na tudd Ndumbe réew mi ñoo ko bokk kenn ku ci nekk cër ba nga ci am ak taxawaay ba nga ci am yaay xool noo koy doxal te kenn ku ci nekk ñu ngi lay jàmm ak ndam ci li nga soxla ndax réew mi rek moo ñu ñor.